asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne tey dama leen bëggoon a expliquer lan mooy télégramme je pense que sax euh, léegi Telegram moom développé na ba nit ñu bari xam nañ ko mais indi leen ci ay leeral yu gën a am solo rek ci application bi Telegram comme genre WhatsApp la quoi application messagerie la euh, daf lay permettre nga man di échanger ay messages. Euh, yaa ñi nga xam ne nii par exemple say yi nga xam ne nii am nañ telegram wala képp koo xam ne am na telegram mën nga échanger ak moom léegi telegram application la boo xam boo ko bëggee installé yaa ngi dem euh, Play Store xaaral euh, ñu ñëw dem ci téléphone bi. voilà léegi téléphone baa ngi nii quoi par exemple boo demee fii Play Store man installé naa ko pare mais dama leen di rek Play boo demee Play Store bu nekkee ne sa téléphone. nga dem Play Store Telegram voilà Telegram boo defee Telegram nii rek euh, application bi voilà gis nga ni man dama ko installé pare moo tax mu ne mis à jour mais su nekkee ne installé woon ko boo cliqué ci installé rek. après application bi di installé application une fois comme nii lay mel xaaral ma comme ni nga nii application moo nekk nii Telegram gis nga nii soo bësee rek automatiquement Telegram bi day ñëw nga xam ne da gis euh, lii ay contact la ak ay groupe yoo xam laa bokk léegi euh, fi ngay paramétrer Telegram bi mooy euh, fi ngay paramétrer mooy fii boo boo cliquer ci trois barres yooyu noonu après nga ñëw fi ñu bind paramètre voilà nga ñëw fi ñu bind paramètre voilà boo ñëwee fii am na son notification mooy son yi ak notification yi mën nga ko foofu confidentialité ak sécurité foofu tamit euh, daf lay permettre bi bari nga mën koo nga mën koo kii xam naa damay bañ vidéo bi gudd quoi moo tax du ma kii mais yëpp ay paramétrage la pour euh, application bi gis ngeen yëpp ay ay paramétrage la pour euh, pour noo gën a mën a utiliser application bi léegi nag li ma ci bëggoon indi ci vidéo yi nga xam ne nii lu am am solo la mooy euh, Telegram comme WhatsApp mën nga mën nga ci créer groupe mais mën nga ci créer tamit li ñuy wax chaîne léegi groupe bi soo ko bëggee créer euh, création de groupe bi c'est très simple euh, boo ñëwee fii ci euh, voilà boo ñëwee fii ci application bi gis nga fi mu nouveau groupe boo cliquer rek automatiquement dafay demander ñi nga bëgg a choisir pour ajouter leen ci groupe bi ñooñu la lay demander gis nga ni groupe bi man dem ba ba deux mille membres ba deux cent mille membres du moins kon. <laughs> fii mën nga am euh, contrairement ak WhatsApp nga xam ne WhatsApp moom groupe bi yaa na mënul dépasser deux cent cinquante six personnes mais fii groupe mën naa dem ba deux cent mille membres euh, bu dee chaîne bi par exemple bu nekkee ne chaîne nga bëgg a créer boo ñëwee fi boo cliquer fi mu bind nouveau canal foofu ngay cliquer voilà nouveau canal foofu nii boobu cliquer nga jox chaîne bi tur chaîne bi moom amul amul limite moom autant de personnes euh, yaa day <laughs> xool li nga xam ne nii moo la arrangé euh, ku ku mën ko ci dugal quoi mën bi moom nombre bi c'est pas limité euh, ngeen comprendre ko noonu léegi loolu daal mooy euh, avantage yu Telegram di wax ne tamit Telegram boo bokkee ci groupe par exemple ci groupe Telegram boo ci bokkee groupe Telegram maanaam boo ci bokkee groupe bi man nga ajouter par exemple. li nga li nga dugal ci groupe bi muy vocal par exemple wala message boo rek yow soo ko ci groupe bi kenn ci am accès contrairement ak WhatsApp nga xam ne WhatsApp moom léeg-léeg message boo ko supprimé am na benn temps boo xam ne boo ko supprimé nii day fekk groupe bi ci bari jot nañ message ba nga boobu du bu dee lii Telegram moom boo supprimé message bi rek ci groupe bi bokk par exemple message boobu day dem automatiquement day supprimé nga xam ne kenn dutu ci mën a mën a am accès. loolu tamit euh, beneen différence la boo xam ne na ko maanaam euh, kii message yi nga yor sa Telegram yëpp su la neexee mën nga ko supprimer euh, ci sa mën nga ko supprimer ci sa disque dure te teewul kii dafay nekk message yi dafay nekk bu léegi soo ko bëggee télécharger waat mën naa ñëw tandis que bu dee WhatsApp nag loolu tamit amu ci loolu yëpp daal ay kii la yoo xam ne nii ay avantage la yoo xam ne Telegram indi na ko léegi li ma leen di conseiller mooy képp koo xam ne intéressé na la demal Play Store euh, comme ni ma leen ko wane noonu ci vidéo bi rek nga télécharger Telegram commencé ko utiliser comme ça da gën a gis ne Telegram am na ay avantages yu bari yoo xam ne nii euh, WhatsApp amoo ko daal loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information di leen remercier ñëpp baax na wasalaam